bienvenue bienvenue dans votre émission Urban Life Urban Life de retour encore une fois allez les gars tey ñu ngi wàcc ci yi nga xamante mom moy mooy quartier Thiès n'est-ce pas euh, ñi fi nga xamante mom moy Fall Medine, Fall Medine Fall kenn euh, du wax histoire Sénégal rawatina histoire Thiès euh, te do xam li nga xamante mom moy mooy Médine Fall angle bi nga xamante ni fi len moy angle mo jeexee n'est-ce pas y'a un artiste bi nga xamante ne l'homme son nom m'appelle Mr Lilka Boy, Boy moy nek suñu invité à travers l'émission Urban Life ce sera tout à l'heure en live on direct en attendant bang dans les événements. Bang, bang, bang, DJ Gigi. Allez les gars Jaxer Jaxer let's go jaare naka war Modou Thiam fa la Thiam toll nga daanu jaajëf sama gaay amee plaisir mais ku ñu doon bi kan la <laughs> non maintenant saa yi angle moo jaxer fa lañ sànni ñuy dox ba fii non foofu yëpp si koñ bi la bokk foofu yëpp mën faa la mais attends mais mais Mbène Fall waaw waaw waaw Mbène Fall moom yaatu na ko en tout cas téléspectateurs yi euh, yéen ñi nga xamante ne yéen ñu bàyyi xel en ce moment seen émission Urban Life en live ñu ngi fii si Mbène Fall euh, Mbène Fall nag yàgg na bëri ay ndaanaan euh, Mbène Fall si côté côté bu mu munti doon passage ñuy nuyu Modou Anta di nuyu tamit ñi nga xamante ne ay icône lañu Fall Médine rawatina côté culture urbaine suñu nee culture urbaine suñu xel day dem si ki nga xamante ne ñoom ñooy waa sañ-sañ crew ñoo ñi nga xamante xamante ne ñoom tamit euh, marqué nañ seen temps marqué nañ seen époque euh, fi nga xamante ni moom mooy Fall Médine à travers li nga xamante ni moom mooy hip hop galsen n'est-ce pas euh, loolu tey moo remonté waat ba tey indi seen i rakk indaat seen rakk rakkaat parmi seen rakk rakkaat am na benn booy bi nga xamante ne booy bu waane booy bi nga xamante ne vrai de scène la booy bi nga xamante ne il a quelque chose à dire dans le mouvement hip hop rap Médine Galsen rap Médine Galsen tey moo nekk suñu invité ma men Mister Lil Ka est-ce que xam nga Mbine Fall bëri na ay ndaanaan. yaay dafa leer. <laughs> yéemaan lan ngeen nuyootee spectateurs yi nga xam ne actuellement ñu ngi bàyyi xel émission Urban Life. yaay di ne siyaaraat Ibi Bari gars yi maa ngi nuyu sama waa koñ di leen nuyu yow ak ñi nga àndal di nuyu sama waa staff di nuyu Thiès kaay yëpp yëpp yëpp. en tout cas ça fait plaisir tey ñëw dalal la euh, suñu émission Urban Life euh, tey euh, ñu ngi Fall Médine sànq dégg nga sama introduction Médina Fall bëri na ay ndaanaan yi nga xam ne ñoo nekk Médina Fall naka waar naka la demee Médina Fall comment ça se passe. yeah maintenant mi ngi nii rek quartier populaire quartier bu neex bu boo xam ni waaw dafa am social quoi gars yi ñoom. ñoom ñëpp ku nekk da nga jël sa bopp jàppee ko comme comme comme comme sa morom quoi comme ni nga jàppee sa bopp moom sa morom loolu moo fi am quoi fii mooy mel na dëgg Cheikh yaa ma gën a xam. Fall Medine Abedio euh, tey nekk nga artiste bi nga xamante ne kenn dootu la présenté si mouvement hip hop Galsen rawatina niveau Thiès. Euh, lii kaa fan la jógee taf taf ba li mbaax gars rek ñëw taxaw xam nga une deux foo tourné booy foo jaar. yee benn booy la boo xam ne fii la débuté mel na Fall ni ma leen ko waxee woon si introduction bi rek. fii la débuté fii li tax ñu defee fii émission bi du hasard. fii la affaire yi fii la naan quoi. waaw l'histoire quoi fii fii lañ daan toog affaire nu mu débuté fii lañ daan toog teg adaaji comme nii. commencé génne foo yi biig di bind mais boobu amuñu woon dara ci bopp bi. right n'empêche pas que ne daan wàcc dem parce que xam nga mairie parents yi bëgguñu ko woon daan jàngi wàcc daw dem suñu benn grand yu nekk fii ku su mel ni marabu ku su mel ni toxique nëga nëga. gaa yi dem waaw gaa yi jox ay ay ay quelques leçons ñuy ñuy loolu di ko téye. Hmm. ba Lille doon ki mu doon tey. d' accord tey ñu ñëwaat fi nga xamante ne fi ngeen dooree. à Bage euh, tey ban fierté la la def en tant que artiste. nekk un jeune talent bi nga xamante ne am nga sa mot à dire te yoon bi sori na des na lu bëri euh, tey nga gis chaque fois chaque année macha allah yaa ngi gis benn évolution. ba tey l' émission Urban Life ñëw fekk la fi nga xamante ne fa nga dooree en tant que artiste lan nga sentir si sa si sa si sa si sa moyen. yeah man li may sentir ci man mooy dama fi dama fier ci sama bopp ah. parce que xam nga début bi metti woon na lool gars yi dégg nañ lu ne quoi dégg nañ lu ne. du dem waaw affaire yi gars yi dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy fontu dañuy saboter et tout mais xam nga. yéewaat <laughs> dëkk na mu beneen yaay booy <laughs> bu soobee yàlla <laughs> ok let's go. gars yi dañuy wax ni gars yi ñoom dañuy fontu ñii dañuy sonal nit ñi. Mm. mais xam nga tout début début si loolu. maam fi lañ ko fekk fi lañ koy bàyyi n'empêche pas loolu lañ ko jëloon garder ko mu nekk si ñun loo xam ne tey dañ ne carrément tey ñii li ñuy wax nii nii da leen prouver que ni ñoom ñuy wax noonu du demee noonu est-ce que comprends ñun bu ñëwee réew ñu quoi ak keneen ku mënti ñëw fii la dalal fi nga xam ne mooy base bi fii la lépp démarré fii la lépp dooree tey ba suñu premier sang bi ñu koy bind fii lañ toog bind ko fii lañ déparé dem studio dem dugali ko kon tey leneen buy ñëw tamit fii la ñuy après gars yi doo gën a a siiw gars après di commencé changé naan non <laughs> dëkkatuma Fall Médine parce que xarit fii la jaay koosa parce mooy loolu quoi la <laughs> nga commencé change gars xam nga di commencé di yeneen yooyu noonu <laughs> ñun complexe boobu ñëwul ci ñun complexe boobu ñëwul ci gis nañ fi ay gars yoo xam ne tey ñoom lu ñu am tey tey ñoom seen seen lu ci mel moo leen ko def. mais tey xaw nañu am benn tur génn ñoom fi mm-hmm. ñu dal nii nii tey suñu grand lañ fi daan fekk. ñoom fi daan fréquenté ñun ñuy fubal fii def ay yëf ñoom ñu ñëw ñu bon exemple suñu lu ñëw fekk leen tux wala ñuy naan wala ñuy def naka suñu ñoon ñoom si ñoon ñu nekk si la ñu jaarale yoon boobu noonu ci la jaaral ni leen non yéen da ngeen di doon tey ki ngeen doon ay doomu maintenant ngeen foo leen dem représenté leen loolu. d'accord parce que loolu lañ def ci ñun te loolu tamit mooy nekk ci ñun. d'accord éternel d'accord euh, tey yaa ngi si game gi étant jeune euh, nga dugg si. tak nga am sa benn place bo si gagné. franchement mu nekk place bi nga xamante ne bu nga mérité euh, tey jii nag nga jàngate woon game bi hip hop niveau Thiès surtout niveau Thiès nga xamante ne fii leen basé wu euh, tey jii nga xool ko analyser ko def si say diagnostic ba tey nga dugg si ba tey am position tey benn position bi nga xamante ne anam peut-être am na ñu bëri ñi nga xamante ne amuñu ko woon te yàgg nañ si mais yow étant jeune nga teel koo nand teel a nekk devant sur scène là aussi tamit euh, ban système de travail ak ban technique nga teg ba tey ji nekk devant sur scène yeah comme ni ma la waxoon sànq rek affaire yi travail d'équipe la quoi xam nga te peut être li <laughs> bi gars yi nag. moom mooy gi gars yi. comme li la waxoon rek travail d'équipe la peut être tey li la gis ñoom moo moo moo moo nekk si kaw mooy rab mooy def lu bari. tey moom la ñuy gis quoi tey loolu moom la ñuy gis mais ñi ñi nekk si ginnaawam ñoo ëpp. l'équipe derrière quoi. waaw ñoo ëpp te ñoom tey par exemple. tey comme sànq rek bi nga ñëwee tey peut être da fekk gars yëpp ñu toog man gisoo ma sax maa ngi woon ci yeneen vibes ñoom seere nañ lépp man damay ñëw si liggéey bu am solo basa comme li ñu posé sànq ñu ñëwaat ci question bi mhm. comme bi ñuy door ñëw fii bi ñuy door a ñun game bi ko jàppee woon ak li am ci biir c' est diamétralement opposé ñu doon gis gars yi nekk si kaw di rab di dem ñu jaam dem game bi noonu la ñëw rab dem mais dafa am ay réalité yu fi nekk fii biir biir Thiès. mais dañuy sant yàlla quoi ba ñu yàlla teel a boole xam ne naanal na ñu loolu teg ñu ci yoon bi. Mhm. ñu du nii nii ak nii la. loolu bokkuñu tamit euh, tey da nga ne grand te doon du ñu tudd euh, sunu grand Amassi. de passage ñu koy hmm. euh, sa link ak Amassi sa link ak Next Studio naka si moom la. naka la demee foofu noonu quoi <laughs> grand Amassi. grand Amassi maa ngi koy nuyu di ko bëgg lu bari parce que lépp la quoi grand Amassi li ma la wax fii lañ toog un jour am benn sunu benn grand bu ñëw. gis ñu ñuy rabantu fii mu ni booy am na studio mm-hmm. moom temps mi ngi grand standing léegi ñu dem grand standing fekk ko foofu ba boobu kuru la ñu woon quoi. Mm-hmm. automatiquement bi ñu commencé def suñu premier son dafa détecté gars yi nga xam ne ñii carrément ay vrais artistes lañ ak ñi nga xam ne gaa yi dañuy nekk di saboté moo ma teel a récupéré mus xam na ni dama koy dama koy fu ma toog dama koy wax ah, xam musuma musuma xam son ñaata la. ba nii may wax ak yow. musuma xam ni musuma xam yéex naa xam ni son dañ koy fay. bien sûr musuma ko xam. studio mu bëgg a dóoree fii ci Galsen day woote demal fii nga dem dóor demal def lii demal fii demal kii demal lii defal lii. parce que tamit icône la tamit grand bi nga xamante ne tey jii euh, am na respect parce que soo ne ama si sikki saaka sikki saaka si c'est autre yoon boobu noonu tey mu jaar foofu la ñu jaarale quoi def si ñun xam-xam def si ñun tamit waaw lu bëree bëri man su ma mënu ma wax si moom daal mais. <laughs> incha waaw li si kanam raw di bët quoi. d' accord suñu yéene si ko def bu soobee. d' euh, yi nga xamante ni moom ngay joué. tey ñu gis tey ji euh, par rapport ak euh, sur scène. dañuy gis euh, artiste nga bi nga xamante ni euh, da ngay occuper sa carrément. en plus tamit euh, lu ma gën a neex si en tant que animateur loolu yàgg naa ko wax. Mm. tey da nga am benn complicité ak public bi da nga teel a nand benn complicité <laughs> ak sa public boobu noonu loolu tamit saa yi da nga xool yeneen artistes yi peut-être amuñu ko yow nga ne xaaral ma ñëw link ko parce que <laughs> artistes yu joué sur scène. Mm. war na am benn complicité ak son public. public bi nga xamante tey ji moo nekk suuf parce que artiste warul jouer événement ba pare xam nga kenn du taaj kenn du def dara parce que foofu peut être am na benn complicité bu mu waroon am envers euh, public bi muy répondre à 100 pour cent quoi parce que concert la ñu wax quoi mm-hmm. yeah tey comme foofu rek gis na tey lépp loo gis dafa am lu mu laaj quoi tey man dama teel a dama teel a comprendre système bi dama ko teel a comprendre teel a débarquer parce que xam nga tey mënoo ñëw fekk gars yi ni ñoom dañuy ñëw rek di bounce di bounce ñëpp ñëw commencé dañuy commencé def mbalax ku ne di bounce fii ñi di fecc fii ñi def ay nangam sangam nga ñëw bëgg a rester si même concept boobu mënul ne non non gis nga melomaan yi dañoo am lu ñu soxla dañu soxla rab dañu soxla dañu soxla taaru bi dañu soxla tey kuy dégager si kaw seen di joxe lu mu am man dama koy joxewaale quoi joxewaale ko sa morom artiste yëpp dañu soxla loolu mais ak yeneen ak bagage yoo xam ne ñu ngi koy travailler maag équipe bi mais tey loolu lañ teel a comprendre teel ko naan ba ñu mën a débarquer ba ñu gis si concert tag doni boy bi tey daf daf ma décevoir quoi. yeah nice si si ba di rappel sax téléspectateurs dernier concert bi nga fa leen bëkkante bi muy bi nga concert naka dafa mel xam nga da nga gën mag jëw band bandulu gaay ya. hmm? ay <laughs> milliers de nit lil ka jëw band bandul di joxe à fond mais bobu <laughs> ya. tamit franchement da nga ñëwaat confirmé waat quoi. yeah loolu la xam nga tey Thiès boobu depuis avant boobu defuñu woon dara defuñu woon sori defuñu woon con demuñu woon concert malgré gars yi ñu doon woo doon ñu jox ay cachet yooyu mais demuñu woon mais boobu dañu ñëw ni tey Thiès moo soxla en plus. that's right. public bu Thiès ñëpp génn nañ taxaw. léegi ñun ay milliers de nit waaw man bu may ñibbi taxi bu ma jëloon rek am na ñoo xamante ne mbind fàll doon euh, ñibbi mu meloon 31 euh, décembre quoi bi may bi may ñibbi si rek bi may ñibbi si rek presque ñun bi ñu dañuy ñibbi si dañu taxaw di jël dañu gaare taxaw ñu dañuy ñibbi si gars yi dañu noonu yëg tey ci oto bi dañuy dox ànd ak public bi dem merci tey mën naa ni tey li ko dagee mairie ba biir mel na Fall. dama jàllale. dañu <laughs> jànguma saaru Issa jàllale. <laughs> jox leen ko alaaji dama jàllale. fii lay yem. allez let's go. <laughs> mën nañu mën nañu comme fu ñu tolloon mën nañu mën a faal ba ba mairie ba mën a faal dañu ko dañu ànd ak public bi bàyyi oto mu dem ñibbi ñu ànd ak public bi di rab ba agsi fii. that's right. ànd ak ñoom wala ñun tey par exemple dañuy gis si kaw seen bi nii mais nekkuñu tey ay jaay prek wala nekkuñu koo xam tey ñun rus nañoo dox ànd ak nit ñi. parce que foofu lañ débuté quoi ñun tey du ma ko fàtte sama première son. jour tam xarit la tombeel mu taw taw bu benti mu ànd man ak sama benn copain Badso. Badso <laughs> ñu ñëw bu balaabe foofu taw mu métti amuñu woon fu ñu dugal mu dem mu dem fay foofu ñu war a jugee ñu war a jugee balaabe puus ba mën a fal. <laughs> te Ibrahima boobu gars yi gars yi naan yéen da ngeen fondu quoi dem leen ngeen noppalu mais boobu léegi dañ ko gëm a dañuy non lii xam nga faa ñu def dara mooy loolu te loolu tey moo fay. moo commencé di fay nii quoi. waaw di ñaan yàlla mu yokk tamit. d'accord mais foofu noonu euh, euh, retour bi nga amoon ak retour bi nga amoon ak public waa Thiès tey jii nga ñëw joxe à fond ba nga toogee se gàlle toog tranquille quoi xam nga mm-hmm. ban sas nga am envers le mouvement hip hop rawatina la région de Thiès. yee man comme li ma la waxoon sànq rek dama fier ci sama bopp ah parce que xam tey naa ne am na ñu ci jiitu tey ci ci ci ci milieu bi am na ñu jiitu ci milieu bi am na ñoo xam tey ñoom ba ñuy ba ñuy ba ñuy ba ñuy ñun géemuñu ba ñuy rab ñun tey dugguñu sax si milieu bi affaire yooyu noonu tey ñoom capable ñu assurer soo bu mel noonu. est ce que comprendre nga capable lu ñu soxla ñoom mënuñu leen ko jox. dégagé tey kon tey bi ñu waaw dégagé tey ñun bu ñu fi nekkee tey. gaa di ñëw ñu ñu ñu bàyyi fi ñu bàyyi fi artistes bëri. dàqatul la dégg <laughs> ñu bàyyi fi artistes yu bëri ñëw choisir lil gaani lil yow lañu bëgg nga ñu tey suñu soow. loolu fierté la quoi xam hmm. mooy loolu moo tax tey mënuñu woon lu dul ñëw jox public bi tey li ñu laaj ñu jox leen ko. d' accord d' accord. aja téléspectateurs yi euh, nga xamante yéen a ngi seen émission Urban Life di rappeler euh, les téléspectateurs tay ñu ngi fi si Mbédine Fall euh, ma mel Mr Lilka sunu invité n'est-ce pas en attendant les événements euh, mais euh yeen balen tiaf gi balen tiaf gi euh tay est-ce que mën nga ma indil track bi nga xamante ne gi jii mën nga ko rabal version live en direct comme ça après ñu décoté ko parmi ces sons yi nga xamante ne mën nga quoi. Alphonse balen su kii bi tiaf gi. am rek am rek am. am yàlla jox leen kaay sëñ Saliou kaa leen buur yàlla jox leen kaa leen buur yàlla jox leen ah jaajëf non staff moom nag moom bokk ñu si quoi Alex go. yow damay ñëw si track comme Thiès bi quoi. parce que xam nga ci débat boobu lañ tolloon. yu man ñëw ci mais amul Thiès bi nag gars yi dañ ci dañ ci dañ ci. non ba pare après suñu pare ñu bañ wax si amul cees bi. Alex go. yow. Thiès laa dégg ni nga Thiès laa judoo kuy xaw di wax nee ko yow siboo te am nañ talent réew ni si solo te yor fi du gënee xam-xamoo uno wax ma la fi des si uno artiro ngi la fay sa contrôle di fay te ñu lay fay nga xew mi fay te ñu lay re 18 ak lay faj te bu kat nga jox faj tarañ taaj wax amul dees yëkkati Thiès loogu fi dees ni kenn du dees bu ñuy rab ñëpp di bams ko bari la Thiès ma mel baan ala lu dees sara bu du duul ay lu duul ne ko Thiès laa dëkk Thiès laa dëkk yaaw du ñu tax a dem fenn ne ko fii lañ dëkk Thiès a a dem la <laughs> euh, ah, gars yi non Thiès Thiès moom waxal rek waxal rek kan moom moom Thiès <laughs> non Thiès moom maay borom moom la am te man la yaa def na loolu mais mais gars tàcc na loolu kay gars tàcc na loolu kay saay danga defe yaay ma defe yaay rek danga ma defe yaay naan non lu wax dafa leer quoi. non loolu loolu moom moo ko Thiès de booy. non loolu moo sax Thiès benn rappeur am te man la ko xam nga. yeah man mais mais mais mais mais sa amul boobu ak Thiès. Thiès daa dëkk tey nga si tàggaay sa bopp defal écotrim xam nga di wane tamit xam nga Thiès la là aussi tamit nekk na son bi nga xam ne tamit Thiès waay yu bëri tamit xam nga ñoom tamit dañ ko accueillir quoi franchement. si concert yeeg yëpp quoi. yeah son boobu il fallait ñu def ko parce que xam nga comme li ma yàgg di wax rek ñun tey lépp lu ñu doon tey Thiès moo ñu ko def. malgré am nañ yeneen studio yi nekk hors secteur du ma tudd nag mais yàgg nañu contacter ñëw tegal ñu contrat. yu bëree bëree bëri ñun non ñun dañuy géemal Thiès ba pare ba Thiès xam ne il faut tey Thiès xam ne am nañu doom boo parce que foofu noonu doguma la foofu noonu doguma la am na gars yu bëri yi nga xamante ne dañuy jóg rek mm-hmm. am ñu leen contacter or après euh, sud bi après moom mooy loolu dootuñu génn ci mm-hmm. après ñu càng peut-être après duñu amaat retour ñëwaat xam nga à la base après nag foofu lay jaaree ndeysaan ñu si bëri seen carrière yam foo quoi comme mooy mooy li ma la gis nga gis nga gis nga bëri na Thiès ah bëri na Thiès bi ñu label yi contacté pour ñu mm-hmm. ñëw liggéey ak ñoom tey dañu ñëw dañuy defar suñu base ba pare. ba tey bu ñu Milan bu ñu ñëwaatee biir Thiès fi bàyyi woon dañ koy récupérer waat. heure bu ñu neexee tey ci loolu lañ nekkoon di ko travailler alhamdulilah jàppale nañu ba tey ñun gëm nañu tey bu ñu demoon dix ans tey ci mhm. la nga dem fi nga jëm ñoom xamuñu la nga bëgg a tourné waa sa dëkk après da ngay nekkaat à zéro bëgg a commencé waat à zéro bëgg a commencé waat di joobaat leneen lay laaj lépp loo gis ndànk-ndànk la escalier la rek fii ngay commencé teg benn benn ba keroog ngay àgg ci sommet bi quoi xam nga. ok dafa am benn projet mi nga xamante ni euh, c'est déjà disponible wala actuellement nii boobu ba léegi ay benn benn <laughs> moom nga ñuy présent sa ay banque de son bi si ne. yaa gis nga euh, comme li ma la wax. lépp yooyu yëpp ah? <laughs> lépp loo mhm. mhm. yi ma jaar ak yooyu noonu boo duggoon YouTube tey sama benn clip nga fay fekk. sama benn son ngay fekk. te clip ngénte la. waaye clip ngénte la alaaji <laughs> wax nga clip rek ñu ñu seetaan léegi clip ngénte la alaaji saa waay saa yi cent cinquante mille gars yi benn leena ma wi ma moom moo dox marché bi récupéré leen deux cent xam nga képp cinquante yi xam nga joxe cent cinquante yi gars non staff bi rek saa yi staff bi moom complet tey bu ñu bëggoon tey toog léegi ñu def fi clip mhm. léegi léegi lañ koy def bu ñu def concert fii nii léegi dañ ko def parce que lépp lépp on a les moyens lépp a ngi fi. yow waxal rek maa xool clip bi clip bi ndax ngénte la wala. <laughs> ak ñaata kii waaw waaw wes wes ñoo ko def. di jéego moo fa nekk euh, Bro Bass gars yooyu noonu ñoo nekk foofu euh, Seydou. Mhm. ñoo nekk West Africa xam nga te staff ñoom ñoo def clip boobu noonu. yéemoon ok ok mm-hmm. Mm-hmm. ok euh, dinaa xool dinaa xool dinaa xool clip bi. le temps que ñu tey jii à part boobu noonu tey. Mm. monde bi moment bi dañoo toll si monde visuel. te ka bon amatoo dara looy profité gars yi parce que euh, euh, kii nga ko si si maintes reprises. yoon nga bi nga xamante ne am nga talent am nga lépp. te am nañ espoir waa Thiès. Euh, surtout hip hop gars seen am nañ espoir si yow. mais tey jii lan moo waral yéexaay boobu noonu maanaam si côté si côté projet yi EP wala maxi wala lan actuellement nii lan moo waral loolu quoi. yéex projet yooyu yéex. non du mën naa ne mën naa ne du ma ni dafa yees euh, parce que lépp loo gis dafa am mm-hmm. dafa am tey fu mu commencé parce que compte boo gis si benn la commencé tey ñun tag bi ñu jógee dugg si affaire yi dañu commencé dem euh, dugg si dugg si compétition yi dem compétir mm-hmm. pour gën a xam gën a tàggat tey sunu sunu sunu sunu sunu mbapat quoi gën a tàggat tey sunu bopp ba tey ba mën a xam tey après fi ñu teg suñu temps. ba doo après doo jékki-jékk ne non bàyyi naa compétition yeeg yooyu. non ba léegi damay compétir ba léegi ba léegi boo munti see mun a bokk rek demal. facile parce que expérience la quoi. voilà voilà ba léegi damay compétir parce que dem nañ flow up dégg naa après clash yi fi jot a génn sax gars yi di wax di flow nga dem da nga teel a toog. nga xamante ci mille. Euh, dara alaaji ci mille quatre cent xaw yóbboo fa dara 1400 boo fa dara moo tax nga teel a dem rek gars yi la. xam nga tey ci 1451 personnes xaw ma. <laughs> yéen man euh, ñu choisir ci 100 personnes. xam loolu rek tey. non si 1000 déjà ñu choisir 100. Euh, euh, loolu rek dara la tey ñu dem compétir te am na tey nu demee mais foofu noonu xam nga jërul ñuy wax mais tey lépp lu ñu waroon def. Mhm. def nañ ko. te tey bi ñu demee tey tak képp ku dëkk Thiès wala képp ku dëkk beneen side bi nga seetaanee da nga ne waaw booy bi li mu def kii tey moom waaw décevoir ñu ko xam nga. ok tey bu ñu wala beneen xar kanam ma ngi ni booy bi ni la mënoon démé day tok mais tay liñ waroon def lépp def nañ ko mais xama ñu suñu bopp quoi. mooy loolu te mais après ba nga démé ci compétition yu mel noonu nga xamante ne yaa ngi wax ci biir wax parce que compétition bi nga xam euh, ci 14 quatorze régions Sénégal képp ñu jël plus de 1000 et quelques artistes. Mm. tay nga bok ci parmi les cent euh, tay ji sa première participation la. n'est-ce pas euh tay ji ban expérience nga si jang euh, ba tay ji déwén soy démat lan nga war a yóbbaat est-ce que tamit retour euh, parce que gars yi bëri souvent euh, suñu dem yenn compétition yi euh, Thiès mooy seule région bi nga xamante ni à travers Flop ñu am ko ñaar. à travers tay ji de passage ñu koy jaajëfal di ko féliciter de passage ak ma mel Mister Avocate. kon donc peut-être man pour man képp koo xamante ne artiste thiessois la. nga war a dem compétition yu mel noonu peut-être war nga jege ñooñu wala war nga jege yenn grand yi nga xamante ne wax la ah booy sooy dem sooy dem compétition nii nga war a demee sa conducteur peut-être soo koy présenté tey jii euh, euh, peut-être da gis benn grand mu wax la conducteur compétition nii la demee extra extra la est-ce que yooyu tam yooyu yëpp amoon na si autour de yow quoi. waaw amoon na amoon na amoon na parce que damay béyee ku si mel ni grand Big Darix. ko grand bu cool la bi may dem Big Darix. bi may dem moom moom <laughs> bi may dem moom moom woo. yàlla xam na ni moo ma woo. nice sama xel sama xel tey maam. nekkul woon sax ci tey isa naa mën a am grand ma woo teg ma si ak mais yàlla xam na ne big daal moo teg ma si ak ni ma boo demee defel nii ak nii déplacé wul nii ak nii ak nii defel nii ak nii présenté la say son nii ak nii boo paree boo pressé pare defel nii ak ni ak nii mhm. yàlla xam na ne te loolu l'expérience fait la différence loolu loolu kontaan naa ci trop parce que li nga ma waxoon lépp def naa ko te gis naa ci réussite macha allah waaw yem ci côté boobu jàngee naa fa tamit lu bari quoi mhm. jàngee naa fa lu bëri gis naa fa tamit lu bëree bëree bëri loo xam ne tey am na loo xam ne tey woon na ma te biñ ñëwaatee tey Thiès commencé woon nañ di si travail bu baax a baax baax ba yàlla tey mi ngi ciy suturaal quoi xam <laughs> ne tey compétition yi ñu dem yi ñu mus benn compétition boobu rek lañ ci mu à part suñu première compétition avant ñuy am sax son la loolu noonu <laughs> avant ñuy am son ñu dajeek ay gars xam ne fii nii ay secteur jëmm yi la tudd xaw ma. ñooñu te secteur jëmm yi tey xam nga <laughs> ñoom kii ñoom Baye Ama. Mm-hmm. xam nga ñoo tey à travers taal bi euh, taal bi tamit foofu la jógee. xam nga boo may <laughs> boo ma gisee maa si tuuti boo ma gisee ne ah, kii dafa ñëw pour sonal te yàlla sutura ñu dem ba quart de finale après toog <laughs> mais xam nga benn bu dëgër lañ amoon. dañ ko daan muy ban muy ban muy ban la woon non boobu lii dafa yàlla quoi may ma ko rek boo fii du dugg si émission bi. dañ koy dagg rek garaaw baal ñu denc ko. dañ koy dagg du dugg. baal noonu may ñu ko du après après dañ ci ñëw <laughs> boobu lañ awoon bu dëgër. léegi yàlla ñu suduraal ñu dem ba quart de finale après toog boobu rek lañ mus a ak boobu ak flow bi rek lañ mus a ci compétition yi mus a dem yëpp is mus a is jël mooy loolu noonu alhamdulilah ko di sant di sant bu baax a baax d' accord gars jaaf d' euh, tey Thiès ñu ngi Thiès mm-hmm. euh, selon yow lan moo nu manqué te dañu gis souvent Thiès gars yi duna mun rab am nañ talent am nañ lépp mais pour percer pour dem vers national pour dem vers peut-être international maanaam pour percer ba pare percer ba pare tenir cap bi. Hmm. ba tey di maintenir la peut-être euh, du ma ne amul mais nekk na li nga xamante ne parent pauvre la. tey jii yow en tant qu'artiste. Euh, ban jàngat si nga am si loolu quoi. lan la c'est quoi le problème. dama koy loolu question dama ciy sawar tontu te dama koy commencé tey suñu grand yi fi nekkoon. <laughs> te bëri woon na grand yoo xam ne tey pour ñu def album à l'époque parce que ñun suivre nañu rap malgré tey ñoom ba ñuy rab ñun judduwuñu sax mais ñoom bu ñu bëggoon def tey seen album wala seen dara Dakar la ñuy dem def ko. bien sûr parce que boobu moo nekk ci ñoom moo moo moo wàcce ba ci ñun. Hmm. ba ci ñun yenn artistes yi quoi. ay benn benn yooyu noonu. non ma la hmm. mais même bu ñuy représenté seen ay son doo ci dégg saa bi Thiès ko ci dégg. ok est-ce que comprendre ma la. malgré dëgg la Dakar. mooy mooy mooy base bi quoi. li ma yàgg di waxee gis nga complexe boobu noonu dafa wàcc ba ci ñun ñu wàccee ba ci ñun mooy que tey automatique ñun bu ñu demee dañuy préféré ñun ñu génn dem Dakar la moo tax tey li ñuy wuti Dakar te pourtant am na fii studio yu yu baax am na fi bit maa ngi professionnel ñu ngi fii nii mais nag mais attends depuis 2009 ba tay mhm. données changé na. 2009 2010 ba moment bii ñuy waxanteeg nii données changé na. données données changé na. dee ko mhm. dee ko dee ko dee yi bëri na après xam nga. lepp amna fi. données changé na comme ni ko waxé mais tay jikko ñoo changé wul. complexe bi moo dañul. right là je suis d'accord complexe bi dañul tay gis nga Dakar bu la xamé mhm. automatiquement ties da lay xam. pourquoi bu la ties xamé Dakar mën la xam. c'est parce que ties waa bi jàppul ci Thiès waa bi. all right. Thiès waa bu jàppoon Thiès waa bi Thiès bu la xamee automatiquement du ma wax Dakar rek mais adduna bi da lay xam. parce que Thiès bokk a ci dëkk yi gën a peuplé fii lépp fii la fekk baax xam nga tey mënoo si génn Thiès. <laughs> léegi pourquoi tey Thiès bu la xamee tey Dakar mënu la xam c'est parce que ñoom tey dañuy préféré tey suivre waa Dakar. wala jëlee artiste Dakar indi ko Thiès. que jël seen artiste Thiès waa ñoom butsé ko pour mu jóg. kon muy promoteur bi. muy ki yor studio am muy beatmaker bi muy tey même kii vidéo sax day préféré tey kilibal tey ki nekk Dakar que defal tey ki nekk Thiès te bu ki nekk Thiès tey bu percé woon ba gars yi xam nga xam lu ñuy wax ay eh, maa si jàppoon maa defoon lii mos naa si jàpp mos naa si teg loxo boobi nangam boobi féeg la fekk ñoom si boobam ñoom ñooy féegi ñoom bu ñu ci tegoon loxo tey boobi dépassé na foofu bu yàgg. alright yeah alright mais tey eh, sànq da nga souligné benn point par rapport ak promoteur tey promoteur xaalisam la yor. selon man analyse. tey su ma leeral tey su ma tegee benn 1000K. Mm-hmm. fay ko benn un million. lu mu dee dee dee peut-être war na am mun a am benn 2 millions 500. mais tey ji mu leer tey su ma tegee 1000K mu ñëw euh, mu leer na ma kii am na public. mais tey day préféré. ak bu mu war a jox événement boobu noonu. Mm-hmm. événement promoteur pour mu réussir. du ko

promoteurs yi tey ñoom ñoo ragalloo artistes yi. ñoom ñoo ragal ñoo ragalloo public bi ñoo ragalloo loo artistes yi. naka ñu ragalloo artistes yi mooy tey gis nga boo imagine toi boobu nekk Thiès benn boobu nekk du ma wax sax Thiès quoi benn boobu nekk tey Saint-Louis di fay. di rey boppam. su ko mënaan di dem di fayal boobu ay somme di fayal boobu ay clipam ba am tey benn somme publique. Mhm. gars yi commencé di ko topp di ko suivre. su ko mënaan mu leer la tey kii nii boo ko tëggalee tey benn concert defal ko entrée est-ce que comprendre ma la public bi tey dañuy gën a yokk dañuy gën ñëw. ba amoon benn tey da dem. si kaw si kaw si kaw si kaw artiste bi comprendre loolu seeta yàlla. yeah yeah ah, non artistes yi artistes yi tey xam nga luy problème bi artistes yi tey ñu leen li leen war ñoom mhm. ñu koy def. Mhm. man li ma tey du ma blâmer benn artiste quoi parce que xam mhm. ku taxale ba génne benn freestyle bu une minute kooku jàmbaar la. parce que bind. est waaw mooy mooy li ma lay expliqué tey promoteur bi tey ni muy ragalloo booy xam moo lan ñoom dañuy préféré dañuy préféré dem jëli benn boobu Dakar indi ko Thiès même xam nga tey ki nga adresse boobu day sentir ni moom tey loolu dañ ko humilier moom. Ah. humiliation lay sentir moom ci moom. Mhm. est-ce que ma la artiste boobu noonu tey humiliation lay tey boobu jëloon benn artiste ma nekk mu leeral ma kii ma public daa ma rab daa ma dara mhm. mais nga jël man tey man li may def genre mënuma ko wala am na tey lu ma manqué wala dara léegi nag mooy tax arrêt yu si bëri dañuy lâché public yu si bëri dañuy lâché. parce que fii nii game bi du ma la ko nëbb comme lamb lamb la quoi kuy ñëw da ngay supporter. am na ñoo xam ne kenn moomu am ñoo xam ne dañuy ñëw tey fu rab bu baax nekk wala fu rab. lu baax lu rab bu baax nekk ñu ngi fa mais am na ñoo xam ne tamit game bi mbapat lañ ko jàppee quoi. léegi nag ñun artistes ñoo war a toog suñu tànk rek dégg nga suñu bopp xam ñun xam ñooy kan quoi. Euh, mais tamit soo raisonné foofu noonu man tamit dina ma xaw a jaaxal tuuti. Hmm. parce que tey jii xaw ma ndax dégg nga ma carrément. wala déggoo ma quoi tey par ak euh, li nga xamante ne moom mooy euh, moom mooy game gi. Hmm. tey promoteur bi. Hmm. tey yow étant promoteur. est-ce que bëgg nga tëgg di perte. no tey xam nga tey tëgg. non répondre ko ci ci côté boobu. léegi léegi beneen bi beneen bi sànq yaa ngi wax tey jii man. leer mm-hmm. exemple su ma sama xaalis xëpp ko si yow. mais est-ce que Lilka dina carrément. par rapport parce que souvent da nga di gis quoi da di souvent euh, tey jii exemple mun nga boole cinq boy mm-hmm. yoo xamante ne cinq boy bois. ku li war. Soumaré day promenade day mais xëy promoteur bi lu def à 100%, pour cent di koy quoi. comprendre nga foofu laa waxee loolu tamit euh, mu ngi si biir game bi alaaj xam nga xam nga tey wolof dafa wax ni yafal màgget màgget ku màgget boo ko yafal xam nga mënoo si jëlee ndam mais promoteurs yi tamit nelawuñu quoi duñu fekk yenn genre artistes yenn type artistes yoo xam ne soi-disant yenn genre rappeurs yoo xam di ñëw wala mbalaxmaan wala théâtre kat ñëw di def di investir sax sa xaalis si ñoom ñooñu yow yaa yaa bëgg a perte quoi yow yaa ne kaay da xaar ma dem perte yow yaa ne xaar man ma dem sànni ji sama xaalis <laughs> mais tey gars yi ñoom nelawuñu quoi xam nañ tey artiste bu baax xam nañ tey rappeur xam nañ tey fu mu nekk mais gis li ñuy wax ni buur aayal dagi ñooy gis nga tey ñi ñi jege promoteurs yi wala genre ñi jege tey ñi nga xam ne ñoo war a ci milieu bi ñooñu ñooñu ci la féegi nekk. parce que boo xoolee concert bi am mairie gis nga dañu sélectionné artistes indi leen promenade dafa fees. na ñoo xam ne maa leen indi. am ñoo xam ne tey euh, yeneen rappeurs yi ñoo leen indi. am na yoo xam ne tey artistes. parce que mbooloo mooy doole waaw mooy doole. léegi Thiès nag xam nga la mooy problème bi. yenn yenn yenn rappeurs fi nekk yenn label yi fi nekk yenn DJ yi fi nekk yenn animateurs yi fi bëgg tey di féewale le yi ñoom seen biir mm-hmm. benn yéen SDO yi ñoom ñoo bëgg tey di créer yenn affaire yoo xam ne amu fi nekk di laax di jëmale sa bopp yenn ONG yi fi nekk yenn groupe yi quoi di soi hmm. seen artistes a dugg si kamb quoi ñoo bëgg tey di tënk seen artistes ba tey ñenn ñi duñ ñu mën di jël seen xaalis di ko def tey ci artistes nañ ko wax te dee te solution lan la pour que affaire bi euh, mu nekk benn game bi nga xamante ne euh, ëppoon lay doon quoi nekk benn game bi nga xam ne euh, xamante ne na lekk si lekk si quoi tey na na li may wax rek na Thiessois bi gëm Thiessois bi. Thiessois bu gëmee Thiessois bi. Thiès amul ku koy téye ci dara ci dara amul dara lu amul ku koy téye ci dara parce que xam nga bu ñuy wax talent fii la fekk baax. talent bu ñu koy wax fii la fekk fii la fii la fii la fii la fekk baax quoi talent talent moo nekk fii Thiès mooy talent. tey keneen ku bëgg talent da ñëw da ngay dem. ku bëgg xam-xam da ngay ñëw puiser fii dem. Thiès moom mooy talent mais pourquoi pas tey Thiessois bi mënut a jàpp Thiessois bi comme li ma doon wax sànq. gars yi ñoo gëmloo que ni ñun ñun tey ñun ñun mënuñu ñun Thiès mënul dem ci hip hop. non day dem. Thiès dañ koy xama xama. kan mooy tere dem si hip hop kan wax ma. kan non kan kan alaaji. non gars loolu la ñuy ko quoi. Eh, déet Thiès mënul dem si hip hop tey boo demul temps rek mënoo siiw boo deful nangam mënoo siiw dëgg la dëgg la quoi tey maam Dakar. game mi ngi fa. mais mhm. Thiès tamit game mi ngi fi. game fépp la ne. comme naa leen wax mi ngi fépp. game fépp la mi ngi fa. yemoon est-ce nga dem Saint-Louis mi ngi fa. tey sama premier concert. du bëggee sama staff nag du ma ko taay di mhm. ci def tey liggéey bu solo. sama premier concert yàlla xam na koy jàpp ci onze jours onze jours lañ ko jàpp quoi def ko entrée. da la moo tax da la yërëmoon. doog commencé da gars yi yërëm. non yàggul ah, waaye jéem ko tëkkaat nga seet. non vingt cinq vingt gis. <laughs> booy rek nga gis staff rek moom nga gis foofu noonu xam nga. non vingt cinq <laughs> vingt cinq personnes vingt cinq personnes ñoo fa ñoo ñoo ñoo le non le vingt cinq bokk. le <laughs> vingt cinq le bi décembre bi passé. bi ci la ko ci lañ ko ci lañ ko jàpp ci la ci la ci la ci la amoon quoi. ok mais ñu ngi ko jàpp ci quatorze jours. staff bi. parce que décembre la gars yi décembre ñëppay génn bale li ñu ay avril bale li jël surtout Thiès quoi dama koy lancer appel boobu ba may nekk corkaat sax laa ko doon commencé di wax ba nii Thiès ñaari date événement la am. avril décembre. mais yeneen mois yi alaaj tey jii benn milka tey jël benn exemple ñu ngi si lan ñu ngi si euh, mois de janvier. Mm-hmm. tey mu jël janvier. te mu leer na la Thiès yëpp xam na ni milka moo ayee janvier. gars yëpp ñëw sot si. Mm-hmm. keneen keneen keneen keneen keneen keneen. mais tey suñu jëlee programme yëpp si euh, décembre bi xam nga public bi tamit newul rek élève. yow côté boobu fa laay waxee quoi. public tey jii public bi nga xamante ne tey jii à travers tey ñi ñuy nekk rajo sax ñoo gën a xam public yi ñuy cons ak ñi ñëw si conseil ñu si ëpp ay mécaniciens yi la. Mm-hmm. xam nga ñu si ëpp ak ñi nga xamante ne xam nga ñu ngi toog euh, di get émission yeeg euh, à travers télé yeeg rajo yeeg. bokkul ak par rapport ak li nga xam ne ñoom ñooy ñoom ñooy kii quoi ñoom ñooy invité yi quoi. waaw comme ni nga waxee tey xam nga la moo tax tey duñu tànn yenn date di def concert tey mi mel ni tey xam nga doo doo doo doo doo doo tànn doo tànn tey yenn yenn date yi nga xam ne élèves dañu war a jàngi dañu war a def examen dañu war a composer nga fay def concert. Mhm. loolu mënul nekk parce que élèves yi tey xam nga du ma wax tey maanaam dëkk bi yëpp ay élèves la mais tey ñi si ëpp tey maam ay élèves lañ. Mhm. malgré tey ouvrier ñu ngi fi mais élèves yi tey boo xool ñoo ëpp parce boo yeewoo suba gi rek taxaw tey fii nii ci rond point Ngent da nga ni maintenant xaar ñëpp dañuy jàng. loolu moom yàgg na nga taxaw nga taxaw tey ci raa nga taxaw tey ci raa nga ne xanaa ñëpp ay mécanicien lañ. wala nga ni ñëpp ay nangam lañ ñëpp ay nangam lañ. am dafa am ay dar yoo xam tey du pour concert du pour tey events parce élèves dañuy jàngi parce que man mi di wax yow damay jàngi am na yenn dar yoo xam tey ba ma ko bëggoon a ba ma ko bëggoon a wala yenn jours yoo xam. <laughs> deux fois deux zéro <laughs> waaw dara mooy fils lay dàq école. ñun ñun ñun. lay dàq nga nga ñëw si rab bi. fois <laughs> est est non di bëgg di bëgg sama école. waa racine carrée de deux ñaata la. zéro. c'est tout tout tout tout. waaw foofu léegi bañ dàq zero. bi lépp zéro la bi lépp <laughs> rëbb nëbb. <laughs> aja let's go. ama tey am na yenn jours yoo xam te moo wax bëggoon invité wala nga ñëwloo ma ko studio tey rek may sonal rek parce que dama war a jàngi xam nga mm-hmm. moo jiitu quoi parce que xam nga tey rab bi rek élève baa ngi fii xam nga mm-hmm. public bu bokkul ak élève bi quoi mm-hmm. mais tamit euh, di osé tamit fu dara nekkul nga def fa dara tamit la tamit euh, challenge la quand même quoi lay waxee quoi waaw comme si osé boobu nga wax man sama concert février laa ko de le 11 février laa ko def. nice pourquoi tey ma choisir le 11 février. Mhm. tey ma doon naa ko def décembre ma xaaraat tey avril ñëw wala ma xaar leneen ñëw. mais ma choisir euh, février c' parce que man xam naa ne tey carrément man public bi ma yàgg a topp public bi nga xam te moo yàgg a topp musique muy reggae wala muy dara ñoom tey kat bu ñu ne tey Lil Ka mooy teg fële concert. wala budul Lil Ka wala keneen mooy teg concert ñoom. hip rek moo leen plein ramadan ñoom dañuy ñëw parce que ñoom mm-hmm. musique moom hip hop ñoom la ñuy dund quoi bien sûr xam nga bien sûr te public bu mbalax bi tey boo defoon fee ay sabar mm-hmm. ñoom mbalax moo leen mën a yëngal quoi ñoom dañuy ñëw ñu cons ñoom seen mbalax ak heure boo ko teg foo ko teg dañuy ñëw mm-hmm. te loolu la te lépp loo am na tey ñoom ñoo koy bëgg ñoo koy cons ñoo koy ñoo koy ñoo koy ñoo euh, di rappel rek euh, tes spectateurs yi euh, ba tey ñu ngi suivre li nga xamante ne moom mooy seen émission Urban Life à travers ki xamante ne moom mooy Milka sunu invité mais bi yàgg na trop loolu lan naan boo xamante ne saa yi euh, loolu daal neex na daal. damay bañ xam nga saboté après du ma naan deuxième ma xam naa ko sa saa yi gàll. na ma collé si deuxième bi quoi. mais nag dama gars yi bàyyi sama DJ maa gis bi fii quoi classe bi xam kaya entre rappeur la entre man la ak ñoom du entre ñoom ak Ela. ko classe la non classe bi mi ngi def mi ngi def ravage boo. xoolee ak ñan la. contre man la. du ma tudd benn label déedéet wax ma wax ma ñeneen ñan la. dugal dugal su ma paree émission bii nii après ma dem si ñoom. ne leen Milka waxal na leen lii. du ma leen du ma leen may du ma leen non dugal xam naa gars yi foofu de. ñoo leen gën a yàgg de. booy feste ab da leen nañ son ñoom tey du ma leen loolu sax du ma leen sax tuddaale di leen may buzz quoi waaye ma wax thérapie tey tapet ma def son tontu leen man tey maam seen son boobu wàññi ko ay yees quoi xam nga man dañ ko def tey mu génn minuit ma xëy tey man tamit ci minuit ma jamaat leen beneen boo xam ne vidéo lépp yéen yéen yéen gars yi jéem a xool naka la effet di di ngeen xuloo war quoi. mais du xuloo du xuloo quoi parce que loolu tamit xam nga game la quoi mais. benn affaire rek benn benn message. mais mais Thiès moment bii gars est ce que na ay classes yooyu quoi. musul am bruit. te mën naa ne tey bu fi bruit amee tey ci milieu hip hop ci actuellement nii may wax yow man maa ko fi njëkk a def parce que man lañ fi njëkk a classe man ma am fit ni damay tontu ma tontu. parce que dem fuloo gars yi ñëwaat. incha allah rabi damay dem jëli ko indiwaat ko incha allah inshallah rabbi bu neexee yalla aw ma ci mais si Ela waaye yéen tamit sama ko copain quoi. te tey dem dem bima demone demoon quoi regretté wu mako dem bima demone demoon regretté wu mako parce que jàng naa fa tay lu bari xam nga mais ben affaire rek la leen bëgg xamal quoi moy que yene grand yi nga xamni tay duñu nekk ñom jabe sen bop yoo xam ne eh, ay kangam lañ wala tay ñom def nañ lepp ci hip mhm. hop ñu ngi nax sen bop may ngi dégg yenn gars yi ma non ñu la ngeem wax leen matoo mbeur est-ce que comprendre li ma wax ñu la ngéem ngay wax ni man mato mataguma mbeur mais comme dañu may tuddu di tuddu mbeur rek man mbeur la alright te Ibob classe yi la bokk ma fàttaliwaat leen règle yi comme ni leen ko waxee woon Ibob classe yi la bokk mais da gis nga classe dafa am fu mu yem gis nga gars yi. waaw waaw waaw nan ay fàttaliwul règle yi gars yi bi julli gars yi juddu xam nga nan ma ay règle <laughs> leen règle ñoom grand yi ñu fi jiitu ñoom tey ñu fekkee lépp ñoom leen règle yi ci la book mais ñu classé ñu classé tamit nga tontu ci la bokk parce que man boo xoole soo ko ma benn histoire ah. gars yi ñoo def seen son classe génné sen son 0 heure mën ma xëyaat def leen ko 0 heure pour wan leen ni maam tay prolifique bobu ngeen war tay mi ngi ci man quoi. right ñu def zéro heure ma def zéro heure. Mm. ñu vidéo ma vidéo ta tay bi défé tay ñom gis nañ sen tay sen classe sen son tay ñëpp ñi lañ def. sama son bo duggé tay ñëpp ñi lañ def ok du question de saboter du dara mais tay xam ci classe yi. génn la bo ci ci la bokku mais. naa suivre loolu après. na xol après

na nek ci cadre hip hop. ci nom na nek ci cadre ci nom hip hop. parce que parce que parce que ñu ci jot ay menaces di jot ay saga non non non non ba tay ta man xama tay man. su dem ci violence ay am bobu xam nek tu classe quoi man tey du sama bobu sama son sama yaay da kay deglu jéemaan tey bi mu jotee tey si tey maam bi mu jotee tey si saaga yooyu jot tay ci yene wax yi daf ko metti dan mo iso do arrêté man ko no mer li ak affaire bi ñoo and ànd. jéemaan that's right. est-ce que comprendre li ma la mm-hmm. man tay mënon na def saga wala ma def tay dépasser wala ma dem wax tay naka sulu non mais duma ko def. all right parce que man xam naa ne sama son tey mag bëgg naa ko teg mag déglu ko ma teg ko xale déglu ko mais xale bi tey bu déggee may saaga su comprendre li ma la wala mu dégg day may menacé wala ma wax yenn baat bu subaa moom bu génnee di saaga su ma yooyu bul saaga danaa ma yow ci yow laa ko a saaga donc li wolof di wax lépp loo bañ xale wax la ko bu ko bu bu ko bu ko wax parce boo ko waxee mu delloo la ko d'accord su comprendre kon yenn grand nañ génn nañ génn ci game booy te ñoom seen na ñoom tey dañu périmé quoi tey maanaam date bi ñu waroon siiwee romb na quoi. ñoom <laughs> yaa ngi leen tooñal encore <laughs> yaa ngi leen tooñal encore. <laughs> non mooy fay euh, taalu mu jeex. non du ma du ma du ma ko nëbu quoi. élégance mu jeex mu sedd. du ko nëbu quoi Thiès benn artiste la rappeur la man la. ah su la neexee alaaji su su la neexee téléspectateur yi ngeen ne Thiès benn artiste moo fi nekk muy mom quoi su ko neexee quoi en tout cas euh, talent baa fi lépp a fi. si hip hop man wax rek côté pour ko. Euh, na kenn ku nekk def wareefam après ñu buux ko c'est est qui gagne c'est hip hop Galsen qui gagne quoi. Euh, Joe euh, t'as à part Thiès lañ dëkk son boobu actuellement yan projet si nga nekk ni nii moment bii est ce que ñu ngi war a xaar clip bu war a wala ñu ngi euh, ay datu EP yu war a concert actuellement lan la gars di xaar année 2023, bi quoi. yeah année 2023, mille vingt trois bi mën ci mën ci wax ni année année année incha année la boo ñu Lil Ka ci lu bari dinañ ko gis tey ci tey parce que suñu concert lañ débuté année te année bi concert lañ koy njëkk a tegee quoi moom la ñuy commencé le février incha allah fii ci Don Bosco gars yi bi ñu ñëw. yéen affaire naa ñëpp quoi. amul xaaj amul seen. Mhm. après bu loolu jàllee concert bi tàkk. EP bi mi ngi ñëw. te dégg naa ci rajo bi sax ñoo koy ñoo tëj concert bi ñoo war a ñëw tëj. tabe di waaw ñoom ñoom ci affaire lañ bokk game la quoi parce que xam nga loolu <laughs> tey mën na mën naan tey. ah yàggal booy yàggal booy yàggal yàggal projet yi. <laughs> ñu génn foofu ñu génn foofu. <laughs> yàggal projet yi mi ngi waaj mi ngi waaj EP am. EP EP mi ngi koy waaj AK 47 bi mi ngi mi ngi koy waaj EP bu tudd AK 47. AK. AK 47 quoi. pour lan AK 47. parce que xam c'est déjà enregistré ba pare euh, lépp mu ngi bi wala commencé ko dara. lépp pare na vidéo yi pare mix mix xam laa la wax. Mhm. mais mixtape bi sax pare na. te bu neexoon tey mën nañu xëy xëy tey bu doonee changé stade bi bu ñu juboo mën nañu suba dañ ko génne. Mhm. loolu dara stade bi bu leen neexoon bu ñu doon guddi la lépp di génne mixtape bi ak EP bi lépp dañ koy booleendoo génneendoo ko guddi. dañ koy def. d'accord sans débat ci ñoom. mais loolu actuellement te année ngi koy 2023 tey léppam tege na. d'accord waaw macha allah quoi di ci béggewaat samay staff lu bari ci loolu. <laughs> mën après EP bu génnee mixtape bi moo ci topp. ok la boo xam ne tey maanaam lépp amul son bu def di ko balance lépp clip la lépp ay clip vidéo lañ ko def. saa yi nga clip de allah ba ma lay clip ngeen tëpp léegi saa kay nga ay <laughs> clip ngeen ay clip yoo xam ne gars dañ ciy investir def xaalis dañ ciy gis tamit. day am différence day am day am day am différence quoi tey clip hmm. boo gis day am différence ak beneen bi boo ko ak yenn clip yi nga xam da gis même type ngay gis même waa ji di daw ñu koy topp di ko pàdd di ko dóor yooyu amu fi de. <laughs> di taal ay sonde ak <laughs> <laughs> na sa saa ñu nga sa clip. sa clip yaakaar ko gis ñu koy xaar. mais Alphonse mii xam nga moom moom moom a rapport la. xam nga yaa ngi wax xam nga muy jéem a jàmb naan la booy nii quoi di jéem a def effet de koñ quoi. waaw sax na la gën leen benn fal quoi. waaw gannaaw ku la parce que moom xam nga rek seedaanuñu quoi moom day jàpp ci bagage yi seedaanuñu de. yéemoon yaa depuis ñuy débuté ba léegi te du ma rus taxaw fenn di ko wax quoi. na man ci ñi ma tax a ñi ma tax a bëgg bëggloo parce que xamuloon terrain xamuloon terrain fausse mi bu wax loolu bu wax loolu. benn façon rab rek la xamoon quoi. wajjati wajjati wajjati rek. rek taxaw quoi. ca benn taaru bindam benn la fi woon ba léegi. da nga ko doon bindal booy alaaji. non ba léegi ba léegi. saa moom saa moom da nga ko doon bindal da nga ko doon bindal. taaru bindam moom benn la fi. sëñ Saliou <laughs> da nga doon bindal saa waay. mbëroo di taaru bindam benn la fi doo ko gisaat. mais en tout cas yooyu yëpp ñu ngi koy xaar ci ah, année 2023 bi. déjà euh, projet yëpp. ñu ngi ci boîte bi. euh xana rek xaar moment venu ngeen lancé ko. euh actuellement mooy loolu en tout cas ça fait plaisir tay ñu ñëw fi mm-hmm. euh ngeen nek ay artistes. artistes yi euh, comme euh, yenen artistes yi ah, niveau Thiès. parce que Thiès tey jii talent kese talent kese tey tey jii yéen na tey gis benn Milka tey mu sori si game gi. Mhm. Euh, yóbbu drapeau Thiès fu nekk noonu la ko yéene tamit si yeneen artistes yi nekk niveau Thiès yëpp. daal si hip hop en tey message bi lan la envers les artistes yi nga xam te ñoo nekk niveau Thiès envers tamit euh, sa fan base yi nga xam te gars yi ñu ngi xaar ak ñi nga xamante ne tamit xam nga ñoo nekk si mouvement hip hop d'une manière générale quoi. man message bi may lancé tey sama moroomi artistes yi que ça soit muy mbalaxmaan bi. muy kii peinture muy simbukat bi muy feccukat sabar bi benn message la lu ma leen lu ma leen lancé mooy que yow mi nga xam ne yaa ñëw tey ak ki fi nekkoon démb amul benn différence leen dong la moom moom dala jiitu yow tey nga débuté. Mhm. est-ce que comprendre ma la moom moo la jiitu. yow yow nga débuté ah, <laughs> kon kon kon a neex. Mhm. yeah le message moo koy wax mooy. ki fi ñëw ki fi nekk démb ak yow mi débuté day yéen ñëpp yéen a yem quoi genre moom daf la jiitu daf la jiitu rek tey moom waar bi mu bay tey ba dressé ba dressé tey ci kaw redoublé effort bi tey moom ba àgg moom fi mu àgg wala nga romb ko est-ce que nga parce que xam nga maam genre art benn affaire la boo xam ne kenn moom ko quoi surtout musique kenn moomu ko amul papa kenn amul ku ni man sama papa moom moom moom rap amul ku naan sama yaay moom moom rab amul ku naan sama sama sama maam moom moom mbalax amul. su comprendre nga aar yëfu ñëpp la boo liggéeyee rek da ngay gis mook sport ñooy am boo liggéeyee rek da résultat yi quoi. tey di wax artistes yi ni leen bu leen kenn bu leen kenn disturb quoi yéen gëm leen seen bopp li ngeen nekk. nekk leen si boo leen war a dem studio dem leen boo war a dem concert dem leen. boo leen war a dem leen compétir. man booy dajeeg yeneen artistes des dem leen ko boo fa jëlee xam-xam nga jëlee ko fa. bien sûr bu la kenn yow mënoo nangam non te li nekk si yow yàlla moo xam yow ya ak yow li nekk si yow yàlla moo ko si def bul nangu beneen nit ni yow li nekk si yow maa ko si def non non te li nekk si yow si yow la ne neewul si keneen te li nekk si yow neewul si man donc li nekk si yow xamal noo koy génnee ba mën ko teg mën ko jaay. d' accord d' accord euh, dinaa ñëw si yow après nga teg euh, mot de la fin mais mot de la fin bi saay fa lay doon quoi ak gars yi fee xam nga ñuy yëngal quoi euh, jox ma micro bi je pense que ki nga xamante ne moo nu kii woon moo nu moo nu teetaloon teetal bu bon bi. xam nga yóbbu ñu ñu dox ay cent mètres et quelque laa la wax euh, Bandi sànq ba tey suivi nga waxtaan bi. waaw tey nga nekk ménagère u Lilka. Mhm. Euh, ak staff yi yëpp mu ngeen nekk derrière. Mhm. Euh, job ak Lilka naka waar naka la demee est-ce que facile na ak tamit naka ngeen di jobee gis ngeen Thiès nu mu mel dañuy gis gain bi am na talent am na talent après foofu lay yem après mu def mu nekk effet de quartier rek artiste du dem du ngeen dem temps bi ngeen perdre seen temps après boobaa mooy loolu euh, te yéen ban stratégie ngeen nar a def ba mën a xam nga jël seen artiste bi toj ko au delà si niveau chess. waaw salaamaat gaay yi béyowaat ñëpp di la béyowaat xam nga di kontaan bu baax ci toog ak yow ndax li yomb li émission bi drama bi nga def yaak équipe bi nga àndal yëpp waaw Diop ak Nilka Ka du ma ni métti na du ma ni méttiwul ndaxte maam tey ni so nek ñun sax ay boy lan ga mais duñu xol ñoko ñoo ko mag ñu ko jema terlo dara lo xamante ni sax da lay leen li donc donc koo koy wax mais da ngay da ngay da ngay da ngay comprendre après xam lii yëf xalé la c'est un dégg da ngay comprendre lolu mais tamit neex na ci ben ko ren ndax xamala mo lax fu mën ti dem tamit du la tuutal du la gatchel ak lu mën ti demé rek man xam fan laa koy teunk bëgg na li def amna talent bi mën nako tamit mu ngi mu ngi tamit tamit mu ngi déggal tamit estafam man léegi loolu lañ laa koy dolli kon après leneen lu mu def si biti mhm. man nag gëm na moom kat fi mu toll nii instant bii nii da kaa war a dépassé 2023 bi comme li nga wax Lil Kaaw du du du dugg YouTube bi ay problème bari fa noonu mais tey jii doo wax cees benn artiste tuddoo Lil Kaaw. bien sûr doo sañoo jox benn artiste kase te joxoo Lil ka kase mais loolu da kaa jóob jóob ak staff gaa yëpp ñuy jàpp ñu mel ni ay Diogo Ela. Mhm. Lufa gaa yëpp. Pa Moussa gars yi toog yëpp. ñaari fàllu yi gars yi di jàpp. gëm ni tamit boobi seen booy la seen raq la seen lépp la. ñu dooloo ko te waa Mbène Fall ñu ngi si ginnaaw. seetaanuñ ko ndax yow ñëw nga suñu suñu suñu suñu suñu war a joué fenn. Mhm. yow da ngay lu bari. yow tamit yow tamit da ngeen fay booy yi da ngeen fay booy yi mille francs mille francs comme policiers def. ah kon xam nga yow xam nga yow xam nga yow xam nga yow xam yaay nii instant nii yow man dama lay dama lay dama lay dama lay dama lay xool. yow bu boobu di joué. yow sa yow sa jëmmi bopp da ngay faire da nekk da ngay xam ne kat kii nii rappeur la. yéen da keroog dañoo jugee. waaye soo doon tàccale booy du du du yoo xam nga keroog xam nga keroog bi amoon musée fii dixième Mhm. conseil boobu noonu benn grand billaahi boobu dafa presse ba wàcc. Mhm. benn paa woo ko mu ñëw mu ne ko sànq bi ngay bi ngay bi ngay róom fii yaag sa ménagère maa leen doon baare mais instant maa lay xajal nga jaal. mu wax ko loo xamante ni man dama cee dama cee feer. mu ne ko boo yow doo rappeur am na beneen baat bu mu teg mu ne ko yow nga. xam nga loolu maam avancement bi nga am loolu ba ci yow loolu man dama ko gis yow ndax am na mooy concert bi mu mujjee dajale du lul kaa di joué day mel ni kii mu ngi game lu mu koy def that's right man ma koy dool leen la rek mm-hmm. si yaa ngi a déglu entourage am yi nga xam ne ñoo fi nekk si yaa ngi dégg jàmm tamit game la rek mm-hmm. la rek ndaxte euh, ñun lu kaa tey jii nii su yëgee ci kaw seen ba wàcc su la rombee doona kii moo doon rap ndax loolu jikko jooju ñun ñi sax dañoo naqari si moom staff bi danaan ko kat su waay def nii del jàppee sa bopp nangam nangam mais moom nekkul suñ moom mhm. ndaxte xale la rek yëfu xale lay def du rabee wàcc après bu neexee day àndaat ak booy yëngal mbedd mi neexal ñëw toog ci koñ bi gars yi teg sëm bi comme nii muy nice mais gars yi tamit mhm. euh, nekk si kees bi si xaalis waa kees gi <laughs> waa kees gi kees gi kees gi kees gi kees gi kees gi essence bi dara nekk fi non xam nga programme yi ñu song essence nii dafa bari euh. te tamit mi ngi nii digle ci 2023 bi EP. Mhm. digle ci message te loolu lépp. xaay sa koy def. si ay dégg de bi sax kii suuf la la vingt la vingt cinq bi. Mhm. bi passé décembre bi. Mhm. tëgg na si ay dégg affaire yi. daa def gis nga fer rek. nga pat may toll de. nga pat di ko seesaa daay di ko defoon. <laughs> hélas waaye su wóor su la xam ba xam dañoo dañoo tëgg per wala ñoo ñoo tëgg daad rossier jaala jaala jaala inshallah inshallah bo en tout cas man mom xam nga euh, ñaari ginaar pour ndeki mhm. ak par rapport ci ci sama wax nga ma ko comme li mu wax rek no xaw na ginaar nak de de ginaar mom ndeki da nga ni ma da nga ni wa bi ben xar ben xar euh, moy agn bi alaykum salam euh, euh bey bi mom moy reer xam nga mhm. bey mom da beul ciow mhm. nga xam dañuy reer rek ciow yi nek suñu yaram rek ñu yek ci kaw concert bi quoi non lo <laughs> graw ça fait plaisir lo graw ok ñu ngi gëna bëgg ñu ngi bëgg fop jajeuf jërëjëf di bëgg waale grand amasi bu baax a baax ndax mu ngi jàpp si bi bu baax a baax ndax avant fii ñun ñu bari mhm. moom la ok merci avant boobu am dara moom la mu ko njëkkee teetal ko ma gars yi kii ma mel mister big up Lufa création euh, ma mel mister Ela mi nga xamante ne moo moo song xeexu jàmbur <laughs> moo song dara yow saa yow soo rombee si côté garage daa la yow ba doo dem mbuur fa la teewa bi ne doo xaaral rek gars yi boole foofu noonu ak ma mel mister. lu fa encore. Euh, Fallou jaajëf. suñu bébé bi suñu bébé bu ndaw bi ah, Anta Anta. <laughs> bébé Anta. Maysa Pi. Adja <laughs> Maysa Pi. waaw bi si ak gars yi nekk fii si ginnaaw tamit. di jógoo. ok di jógoo waaw waaw West Africa. yéemaan yéemaan yéemaan en merci beaucoup. ok ñu ngi jaajëf respect. jaajëf respect euh, euh, ma mel ne Ela dem Ela sax maa xalaat booy bi damaa sonal quoi euh, Lika. tey sànq dama xaw a sotee loolu après ñu téye nekk emporté est-ce que autorité nekk niveau Medina Fall autorités euh, yi nekk niveau Médina Fall est-ce que yéen a ngi dem si ñoom est-ce que ñu ngi jàpp seen projet yi parce que tamit euh, c'est pas évident tey ñu ñëpp xam nañ nu euh, am na ay jeunes talents yi nga xam te ñu ngi fi te soxla nañu soutien quoi. waaw côté boobu moom dama ciy sawar a tontu xam yi ñoom ñu ngi Médina Fall comme ñun ñoom parfois tey ñoom ñoo bi ñuy nekk boo ñooñu daan jox seen tiset tey ñuy ñuy daw di yooxu tey ñoom tey bi leen soxlaa am na ñu si bëri du ma ni ñëpp quoi ñu seen bopp mënutu leen woon sax gis te ñoom heure bu musaan soxla te ñuy gis mais nag n'empêche pas am na ñu yar ñoo xamal lu bëri ñooñu tey buñ bëggee def dara bu leen ko waxul sax da leen di métti parce le vingt cinq bi doon tëgg dañu woon tey ñun soxlawuñu ndimbalu ah dañuy dem ak suñu doole bopp mm-hmm. yàlla sutura avant avant avant zéro heure sax def nañ guichet fermé fees na man ñu ñoo. ñu moom mooy entrée kii rek 500 bi rek bëgg a defoon rek. <laughs> non pas entrée 500 ba tey ñoo duñ jëlaat kenn. keneen fait ñu dóor affaire yi ñu géem après dem mais am na ñoo xam ne tey ku si ni grand hall Modou Koumba. Mhm. moom daf koy wax nee boo tegee dara te yow waxuma fu ñu daje après maa yow am problème. toxal grand yu bëri yu mel noonu nekk si koñ bi quoi ñu comp bagage quoi jàpp si bëri na ñuy comp bagage yi si jàpp mais bëri na tamit ñoo xam ne a comp mhm. ngeen foofu noonu dem ngeen si euh, euh, seen commune est-ce que loolu tamit staff am na ay yenn démarches yu nga xam ne dem ngeen foo est-ce que am ngeen audience ak moom waxtaan ak moom wan ko tamit am ngeen seen mot à dire si développement wu Médina Fall si développement wu euh, commune nord yëpp quoi. yooyu da euh, am dama demuñu si mairie quoi di fa wax dara parce que xam nga tey rab ak ak politique dafa xaw am tey benn différence te gars yi dañu koy jaawale. Mhm. tey dañuy jaawale tey man tey mën naa am loo sama koñ ma taxaw bi ni teg si kaas ko wala tey ma def benn benn affaire tey woote leen ñëw ma kaas loolu noonu mais loolu tey ak ba léegi ak politique bokkuñu. Mhm. tey ba léegi bokkut ak. tey porteur de voix la quoi. mais mhm. a fal lii kii fii a fal fii ensemble. non loolu dafa am différence quoi. Mhm. tey man ma meer sama koñ. comme tey li ma gën a dugal si musique quoi dama naan gis yu bari sama koñ fii daanu ma ko mën mën man mënu ma faj. ma ni carrément tey dama koy bind dama koy bind dem teg fan laa koy génnee amoon tey moyen pour génne ko ma yàlla tey duñu suturaal tey ba mën naa ne man tey tey ci loolu laa formé woo tey ba ba ba nekk artiste ba léegi loolu juguma ci lu lépp lu ma gis loo xam sama saayit neexuma tey bu fi insécurité bi amee hmm. mën na faal yi ngay dégg tey dee yi fii nii ngay dégg kii diw kil nañ ko fii diw nangam lamp yi tàkkatul agression bi dafi gën a bëri tey dañu taxaw ñu kaas ko hmm. yàlla suturaal ñu dañ ko kaas même pas deux semaines koñ bi fépp moo gën a leer Paris. macha allah nice. ba léegi nii. Hmm. te yàlla ñu ngi sant yàlla bu baax quoi maam genre tey du ñun yàlla tey àndul woon loolu noonu du àndu. tey leneen gis benn affaire bi neexuñu suñu koñ ba léegi juguñu koy kaas. seen koñ nekk si parmi si koñ yu hmm. tamit ak dem tamit tey ci benn autorité. ni ko a def non même moo amu fii mais mais ñoom seen <laughs> seen wareef lan war a def si seen commune rawatina képp koo xamante ne artiste nga nest pas all right mais pas pas pour dem ay maye conso mais ñoom nañ xam seen wareef bu nu war def. ci seen commune ak artistes tamit jàpp si artistes yi am na ñu nekk d' accord ñoom dañuy ñëw di ci jaabu. d' accord all right mhm. soxla la tey soxla tey sa public. wala tey trop tard na quoi. waaw feeg feeg béy wéy mbuus quoi. jërëjëf tey la ñu komb loolu alhamdulilah te xam nañ tamit fi ñu teg suñu tànk bu baax. ok ba kenn duñu duñu duñu mën a use ci yenn bagage yi kenn duñu gis tamit ci yu ñaax fayda. d'accord tey fal leen diw C'est un problème nekkul ok les gars Nous terminons en beauté ak euh, partie freestyle n'est-ce pas euh, ñu terminons en beauté on se donne rendez-vous très très très bientôt ci un secteur c'est niveau Thiès ci une zone ci niveau Thiès même au-delà du niveau Thiès parce que c'est Urban Life à travers l'émission euh, Urban Life yi nga xamante mom moy télévision Teranga Sénégal savoir et comprendre savoir et comprendre. <laughs> <laughs> merci beaucoup Alphonse merci beaucoup ma Mr. Cham merci beaucoup euh, sëñ Saliou mais c'est tout le rek euh, moom xaw a mais des fois Si je ko dire wax affaire négatif dama naan ko Zal Zal yaba Zal <laughs> mais en tout cas Nous euh, ñëpp ak toute l'équipe derrière nga xamante ne ñoo TV, TSTV ñoom ñëpp maa ngi leen de passage allez les gars rendez-vous Inch'Allah bientôt en attendant les événements bang bang bang mais je tëjee ko ak Saifo ma Mr. Mister Lil Boy in the building pra te mi ngay roté mako ko mënu ñu bokk baak man ci ko bit bi comme demul na ma tok di xaar bu seen anki lu bigi no braaki gontu baak ma suwat, waat jagi jaagi jaag di maritat aka kara karal ngay ci bit bodul dul si may rap di re nga rap di jooy ak xëpp mystique c'est man boy def may re mel ni jooylu mënu ma yem ci rap ren di fek loloy sama pass ma bit ma rakaj flow da nga def fam su tëdd row e rap bu dëgër dis ko conteneur gal do du teer may daw sa tim di neer woowee ma sangi ner boy ma rap ba war nel fis ne re tang ma def sayfa jox ma bit ma rap ba sayfa rap ba seyif rabu ngoor ak keng woowee ko saay foofu laay taal si kaw seen seral sa rab ak sensir rabu léegi lambul ngay mbëkki miir ba léegi pare guñ bu dee ci rab damay rocci ruu romb la yan la kuuboo dañ la suur rab du dose ak ma yokkaat si gaar lu tiir lul kaamu képp biir soxlawul daaj pour mën a bind it ab birs xaru tabaski wét ma ma julli it fu ma gis tiit ni musulman bu képp véro wés tiit seen gembe desee naat ma ñëw arrosé waat mën naa ko waat ci rab dama lay faat soxlaw mat kalifaat foog sama xar kanam du raar ba raw sa taatu geelu yàgg mbapat bëree daan wooye ma daam sa génn noppalul rokk min rokki ratak ma jël sa ruu nga jëf ruu song papalil nga jël sa kóoni ruel hip hop ruel hip hop hip hop das ma hip hop fii la fekk baax ñu ruel hip hip <laughs> 11 eh. incha allah fii ci Dombosco big concert gratuit avec Lil Ka Boy Manda Fall Thiès Kaay. mais Zizi da ngaa daw setup su geng geng geng. Wow, wow, wow.